war mën a jaar ba jéem ci indi saafara ñu ngi fii ci diwaanu Bargny comme ni ma koy faral di waxee nguur gi ñu ngi fi seetaan loo xam ne nii bu ñu ci jëlul matuwaay coow dina fi am bu fi coow amul sax ba noppi li ko waral moo di problème mu suuf askanu Bargny ñëpp ñoo booloo nekk benn taxawal ab kuréel gu ñuy duppee ci nasaraan collectif pour la sauvegarde des terres de Bargny maanaam kuréel goo xam ne nii bu ñu ko doon tekk ci kàllamay may wolof mooy ay ndaw ñoo ko taxawal ngir jéem a xeex seen suuf si ñu jàpp ne dañ koy caxat caxatee bari ñi nag dëkk la boo xam ne nii dafa waroon a màgg waaye dafa mel ni màggatul lan moo ko waral ñiy jàpp nañ ne géej gi bokk na ci la nga xam ne ni moom moo leen tere màgg ñiy jàpp ne découpage bi nga xam ne def nañ ko génne séndu ci biir bari ñi bokk na ci la nga xam ne ni moom moo ko waral ñu aussi jàpp nañ ne société bii di soo Sococim bokk na ci li nga xam moo ko waral waaye tamit ak pôle bu jam ñaajoo bokk na ci li nga xam ne nii moom moo leen tere màgg mu nekk nag ay jafe-jafe yoo xam ne nii askanu bari ñi ñu ngi koy jànkonteel lu jëm nag ci jafe-jafe yooyu le moo tax ñu ñëw fi tey fas yéene wuy si wootef boobu le ñu ngi fi nekk ki nga xam ne nii moom moo di Libaas Ngom topp ci ki nga xam ne nii moom moo jiite kuréel bi dañu koy jax d'abord mu nuyoo su ko defee ñu dikk ak moom ci li nga xam moom moo di laaj yi. maa ngi lay président mhm. di wax nga xamante ne bii fépp ko di ñu gunge te mën na dem mhm. si maa ngi fi nekk ki nga xam ne nii moom moo di Sini Seck. Siri Seck moom mooy président commission domaine urbanisme aménagement euh, moom mu ngi fi représenté fi ki nga xam moom moo di monsieur le xam naa ne ci kanam tuuti daañu ko jox su ko defee moom it mu nuyoo euh, digg moom it ñu am ay laaj ak tontu yoo xam dañ ko seq moom waaye libaas collectif bi ndax mun nañoo xam lu tax ngeen taxawal ko. maanaam ma fi wax problème yoo xamante ne am nañ ko tey mooy problème suuf si bu ci topp mooy problème central à savoir bi problème pôle urbain bi problème euh, limite bari yi mu euh, lotissement bi nga xamante ne maire bi fi nekk tey def nañ ko ci à un million mais da ko euh, waaw loolu moo tax a jóg waaw léegi boobu suñu gën a yaatoo moo suñu gën a yaatoo mm-hmm. ma njëkk si problème suuf si suuf si en fan yii mag ñi fi ne woon dañu gisoon ne dëkkuwaay dafa xat te ban dafa war a mat maanaam ak ñu dajaloo jël seen suuf yi nga xam ne ay tool yu daan bay di dund la dañ ko jox équipe municipale fi ne woon si jamono jooju pour mu daga ko def ko ay lotissement jox ko waa ban ñu jël ko def ko ay lotissement mu toll ci six mille cinq cent lotissement à kër yoo xam ne dagat nañ ko jox ko waa ban grande surprise ñu xëy benn bés en 2005 beneen euh, maire bi gouvernement pour beaucoup mettre sur l'école publique de la Soutien. De l'ensemble de ce lotissement-là, c'est à la Socosine pour ñu ne dañ koy def une réserve pour les siècles à venir. pour seen carrière. ci 6500 yooyu ñu xam ne dañuy jël doo ko lotissement euh, doo ko Socosine te 220 hectares la woon Socosine dolli si 241 hectares muy 465 hectares bu Socosine jël suuf kan moo ko jox. Euh, ancienne équipe bu fi newoon. équipe municipale bu fi newoon moom rétrocédé. Euh, kan moo kan moo nekkoon maire bi. ma Diouf moo fa nekkoon maire. Mhm. waaw léegi su ko siy jox ñu mhm. boo xoolee si si vingt neuf hectares quatre cent soixante et un hectares loolu jéggi na loolu dafa nekk xel ndox sama bokk njóor bi te si ngi la lii def parce que na loolu. mais loolu lu lu si garaaw li si garaaw mooy ñi nga xam ne dañu leen joxoon kër ñu fay seen i at ñu fay seen seen seen seen seen i euh, ak administration fay lépp euh, préfecture ba ñu jox leen seen kayit ñu am ko ñu moom ko te ñu ne dañu yóbbu so dañu yóbbu seen mais ñee ñu yóbbu seen boo xool sur les quatre mille cinq cent yi doon dem seen pratiquement mille am ay kër parce que les trois mille yi nga xam ne tey jii may wax ak yow kenn dañu joxoon sama kër mu ngi nii wala sama këyitu kër mu ngi nii. waral loolu ah, liggéey boo liggéey boo xam ne kenn xamul lu mu doon loolu mhm. cinquante mille francs leen laaj kenn ku ne. pour que mu doon ay frais de bornage. léegi finalement joxe ngeen ko ban année ngeen ko joxe. en léegi soo leen seen terrain. kan ngeen joxoon seen xaalis. 1999. kan ngeen joxoon seen xaalis kan. président bi amoon na suñu cent mille di fay di fay di fay di fay di fay ba mu mat am na ñoo xam ne retardataire yi trésor la ñu dem faye man trésor laa faye yor si coupon jox la sa lépp nga yor sa kayit normal mais ba ñu koy yóbbu seen seen bi tàgguñu kenn tàgguñu kenn dañu teel ñu lay jox jox lañ ko seen bi ñan ñan ñoo ko yóbbu seen du ancien maire bi ne woon muy maire maire Mante ok moo nga def ko détriment des populations mhm. waaw mu mel ni du benn problème boobu rek ak ban ren problème bi amaat na problème centre assainissement loolu gis naa la boo xamante ne bii dañ ko defaroon doxoon ko maanaam waa bëri nga ji nga xam ne géej gi dafa nangu woon suñu kër maanaam région côtière bi. ñu doxalee waaye ñu dox leen seen dëkkaay ñu ngi doxoon am na si ñoo xam ne ñu ngi doxoon en deux mille euh, cinq am na ñoo xam ne c'est en quatre vingt quinze dañ la ñu ci doxoon. Mhm. boobu tey jii mën nañu jël quatre ba centrale à charbon mais ñooñu ça fait six cent et quelques parcelles yooyu six cent quatre vingt seize parcelles plus précisément. Mhm. tey jii kenn hmm. maanaam maanaam maanaam plan bii. nekk e, e, existé tul nekk ci hmm. léegi fii ñaan ñoo fa. ndox bi dafa nangu seen kër ko joxoon. Hmm.

Mm-hmm. jaaxle nañu lool. Mm-hmm. amuñu benn fu ñu jëm. ñooñu mm-hmm. doy wàlloo. am ci kuñu ko ñu wàlloo moo waral kuréel. du benn bi rek. ak ban. beneen bi. mooy bi nga xam ne suba si ñu jël na li mu jël. central Assad woo bi. jël li mu jël. dina wax waa test de kon de war nañu peut être war nañu mën a màggee peut être ci ginnaaw raay yi. état bi des na déedéet des màggee. teg ci pôle urbain bi. mooy ban waaw. natt bi ngay gis nii. Mmh. mooy réserve foncière bi nga xam ne moo desoon si Paris pour war ñu war ko mën a màggee ñu jël ko teg mmh. boo déggee ñoom pôle urbain dem naa doon ñu toog ci suufu bu mmh. mel ni kon tey ba ci daal bon fu ñu ko war a ñu ko def rek ñu ñëw am lu fa def. li ñu nekk euh, am lu ñu fa def ba tey amatuñu dañ koy jël. daal di avancé bu baax a baax a baax a baax a mel ni kon dañuy programmé disparition Bargny si biir Sénégal. Mhm. parce que bu ñu nii fii ak ñaar fukki at Badina boo see continuer disparaître amatuñu fi mhm. mais dans tout ça lan la ci lan la ci seen kilifa yi def surtout euh, autorités yu bees yi ñoom lan lañ ci def. waaw autorités yu bees yi parce que problème bi vraiment accès problème boobu. mu mhm. am problème dama yeggagu moom. ba des na. parce que kii bële lotissement bële ñoo doon wax mën na mën a nekkoon yoo xam ne dafa toll woon ci deux cent quarante personnes. deux cent quarante personnes yooyu am ay borom parce que bokkul ci transfert bi alors que même bureau bi bi fi nekk tey ñëw na dañ fi def benn lotissement ci kaw deux cent quarante personnes def lotissement huit cent onze personnes. maire bu bees bi maire bu bees bi. te ay terrain jàmbur lañu. ay terrain jàmbur lañu ne dañ koy jaayee ak un million deux cent. ah parce que nag euh, bu fekkente ne da nga def di social. Mhm. nga ne euh, nga joxe cinquante mille ñëpp mënuñu ko jënd. nga yokk mhm. mhm. daal. waaw dafa mel ni que Bagne moom suuf desatu fi. dara desatu daa mel ni que mairie bi géej gi Sococim ak état ñoom ñoo leen sañ ñoom ñoo leen a ndar képp. waaw moom gën a état. maanaam daal dafay ñëw nangu seen suuf daal noot leen. problème bi yëpp état maire bi loxo état mu ci biir. Mhm. ba loxo état mu ci biir. Mhm. mu Ablaye Wade. moom mhm. ci biir central assainissement léegi à yan action ngeen fi def. yi ngeen ciy def aussi am am na ay résultats. parce que si def mooy d' ñu ak suñu kilifa yi xam ne ñoo ŋànk bar yi mhm. muy euh, municipalité bi amoon nañu doon def ak ñoom ay rencontre di leen discuter ba amoon ay coowoo am jaawaloo ak ñoom si boobu gis nañ ci aussi préfet donc préfet bi fi nekkoon avant demoon nañu coow lu mel noonu ay coow te too ñàkk déggoo mhm. si li ñu doon waxtaan maanaam ci problème l'ensemble des problèmes de Mm-hmm. ñu jóge si mais nañ nañ dem foofu la ban benn problème la naka la naka yéen yéen fi toogal je pense je pense problème waru fa mën a am. tey jii bu ñu fi toogee c'est grâce à vous. te yéen aussi dafa am loo xam da ngeen koy xeex. kon ban problème moo war am seen diggante bay coow di ci am. moo def mais commune daawul délibéré si délibéré si si tool. Hmm. maanaam si maanaam ci dëkkuwaay. te ñun daal amoon trois délibéré ci ci ci àll bi. Hmm. maanaam bu ñu dëkkoon su ko suñu kuréel maanaam délibéré jóge si biir côté yéen di délibéré jóge yéen sànqal ko délibéré jóge sànqal ko mbaam aujourd'hui ak à chaque fois la décentralisation commune euh, am na droit hmm. mais waa mairie ñoom dañu baaxoon délibération yi nga xam ne nit ñi nañu ko. discours yooyu nga xam ne le mhm. euh, euh, maa ñëw ci population bi maa ngi fi nekk ki nga xam ne nii moom moo di siini Seck euh, Sini am na interpellation c'est que li ma lay njëkk a laaj de un moom mooy que naka ngeen mënee defee lotissement ci kaw lotissement ça c'est interdit. salaamaaleykum mbooloo mi balaa may ñëw ci question bi nga may moom nuyu waa Bargny yi toog tey mhm. suñu kilifa yi notable yi tey ñu ngi fi. Mhm. maa ngi leen di nuyu lu bari di nuyu population Bargny bi yëpp. si hmm. les téléspectateurs de Walf TV euh, di rafetlu it vraiment émission bi concept bi parce que am na solo lool parce que di ngeen ñu permettre euh, population yi à la base ñu mën a remonter seen i tawat pour que autorité yi mën ci dégg euh, indi ci ay saafara pour ñëw nag ci sa question bi li may wax rek foofu mooy damay rectifier tuuti rek naam administration continuité la. waaye damay préciser ne lotissement bii muy wax nii en question lotissement la boo xamante ne ñun dañ ko fi fekk mhm. équipe bi passé mhm. moo ko initié woon ba jotoon autorisation de lotir bi ku nekk lotissement administratif mhm. euh, étape bi ci mujj daanaka mooy euh, boo jotee sa autorisation de lotir et équipe bi passé demoon na ba étape boobu ba jotoon autorisation bi autorisation bi génn na depuis 2013 mais équipe bi passé Euh, dafa am euh, surface bu mu defoon ci parcelle bu ne maanaam dafa weesu woon trois deux cent mètres carrés plus ou moins cent cinquante mètres carrés euh, finalement ils ont voulu def ko cent cinquante mètres carrés te xam nga wàllu lotissement bu fekkente ne da nga amoon benn taayu parcelle nga bëgg ci dellu pour réduire ko da ngay daal di tàmbaliwaat procédure bi ñu daal di reprendre malgré que amoon nañu autorisation de lotir bi entre temps mu nekk ci circuit administration que administration tam ak temps ba yàlla def élection am campagne jot xam nga yu bëri du sotti moment boobu ba ni ñu yegsee donc bi ñu yegsee nag ci la maintenant deuxième autorisation de lecture bi dal di génne donc loolu damay préciser ne kon donc initiative boobu équipe bi génnee moom moo ko jëloon ba mu génnee ñun ñu hérité ko wax naa ko nag administration continuité ñun donc dañuy jàppane. kon daal da ngeen doon lotissé pour jéem a wàññi métrage bi. métrage boobu ñu wàññi du ñun. ah c' est toujours l' ancienne équipe. je mhm. nee naa la bu ñu ko wàññiwul woon. Mhm. fekk nañu ñu distribuer ko bu pare. Mhm. mais ñoom ci seen bopp ñoo changé parcellaire bi. donc ils ont repris le circuit. ce qui fait donc ñun bi ñu ñëwee ci la génne. je sais pas ndax sama. non comprendre naa comprendre naa leer na. Uh-huh. donc mbir mi noonu la demee. comme nag hérité nañ ko nag maintenant. ñun on s' est dit lenn daal la ñu wax dañu ne mënuñu concevoir euh, état ak service yi mu am yëpp les services de l' état. surtout euh, niveau de cadastre et euh, des domaines xam nga lotissement dafa am lu ñu koy defee fépp fu am lotissement ñoom am nañu seen cartographie ba xam ne lu ci nekk dañ koy kale parce que warul effectivement mm. lotissement ci kaw lotissement bu fekkente ne les service de l'État def nañu seen rôle na mu waree mais ci li mu wax dana am fu ma ko joxee raison parce que tout simplement damay jàpp ne tam euh, am na foo xamante ne liggéeyuñu fa liggéey bu set na quelque part bon responsabilité yi nag du ma ko situé mais constat bi ma def mooy effectivement bi ñuy jël euh, lotissement Médinatoul Mounawara bi nga xamante ne c'était en 98 di leen transféré au niveau de Sendou ñun jot nañu benn papier bu ne am na 240 personnes yoo xam te transfert boobu concerné wu leen mais fii problème bi nag nag mooy mhm. ba ñuy def transfert yi defuñu la part des 240 yi ak ñeneen ñi parce que bu fekkee am na 240 yoo xam ne bokkuñu ci mhm. buñ leen waree recensé ku ci bokk rek war nañ laa wax ne dellul dellul bokkoo ci demal nga toog fa nga toog parce que sa parcelle bokkul ci ñi ñu war a yóbbu mm-hmm. mais malheureusement dañu nangu ñooñu it ba tax na ñooñu benn partie bu ndaw moo ci des mm-hmm. liggéey boobu nag ñu ngi koy def parce que dañu ne duñu attribuer benn parcelle ci site boobu mm-hmm. tant que jàngatuñu la fa am yépp képp ku fa war a am parcelle ñu bàyyi la fa nga ne li ci des maintenant comme yàlla dogal na yóbbu nañ leen sendu ba ñu dem ba jot seeni i parcelle ak seen acte administratif ba identifier ko bu boobaa mun ñu leen bàyyi sendu bàyyi leen foofu kon bu boobaa dafay mel ni ne dañu am ñaari parcelle bi ba dem sendu identifier yor seen parcelle ak seen acte bu boobaa dañuy bàyyi bii mhm. loolu moo indi ñu jàngat situation boobu képp ku fi am parcelle foofu mhm. ci Madinatul Munawwara ci le deux cent quarante mhm. fa lañ lay bàyyi fa nga ne ñi ci des nag te xamoon na yóbbu nañ leen daa y a parce que la ñu waleen war la ñu warloon ak ñoom jot nañ ko donc li mooy mbir mi mais maintenant en tant que ay autorité waa ji wax na ko sànq mu ngi jëm ci pôle urbain bu Diamniadio euh, tey jii ñëpp xam nañ ne Bargny étant donné que fa ñu yaakaaroon yaay nee nañ teg nañ fa centrale à charbon benn côté bi yaakaar naa moom moo fa ne Sococim par rapport ak loolu nga xam parce que ñoom dañuy xeex ah, te xeex bi ñuy xeex sax yéen a ko waroon xeex yéen. waaw maa ngi maa ngi maa ngi rafetlu sa question bi parce que c'est une question pertinente quand même. Mm-hmm. Euh, balaa ma ñëw ci tontu bi damay euh, encourager et puis euh, di féliciter ce collectif là. parce que mënoon nañu def dans la violence. Mm-hmm. mais ni ma gisee seen démarche mooy ñu ngi documenté yor seeni information ci kaw ay euh, information yu fiable hmm. euh, di jéem a am aussi benn plan d'action pour dérouler ko et puis yëglu par rapport aux autorités pour que ñu mën a régler seeni problème hmm. moi je crois que état loolu la fi nekkee municipalité bi loolu la fi nekkee te la municipalité Bargny bi nga xam ne bokk naa ci wax dëgg yàlla ñun jàpp di def li ñu war a def hmm. comme lan comme lan muy lan rek mooy transparent ci li ñuy def di communiqué di recueillir les informations à la base di xool population yi seen bëgg-bëgg pour jéem ko saafara. Mm-hmm. donc ñun ci loolu la ñu bëgg inscrire suñu action. maintenant li nga ma wax muy par rapport à la Sococim effectivement Sococim depuis 48 mu ngi ci suuf Bargny ñëpp xam nañ ko Sococim fait partie de Bargny mais malheureusement peut-être du dellu ci ci libaas bi parce que wax na ko l'histoire il faut le regretter. Mm-hmm. à un moment donné la commune commune trait d'union Bargny Rufisque Bargny. Mm-hmm. mu ne euh, demee commune en 90. Euh, malheureusement la Sococim les retombées qu'on ne barni. Mhm. Alors que jusqu'ici, au moment où je vous parle, mhm. mais tout concorde à, à, confirmer que la Sococim mhm. est bien à Barni. Parce que des décrets existent. Mm -hmm. Non, non. Est-ce est est qu'il y a un de fille, si bien mairie bi? non non non du tout du tout. amul benn dërëm boo xam ne mu ngi koy dugal ci biir mairie yi. Sococim loolu mën naa ñeme naa ko wax fii parce que bu amoon bon di ngeen ci budget Bargny. amul benn dërëm malheureusement il faut le regretter. Euh, bu muy dugal teewul nag maintenant l' ñun équipe bu bees lañu. Hmm. démarche bi ñu jël hmm. euh, mais avec avec l' acte trois de la décentralisation loolu waroon na bokk ci li nga xam ne nga ko waroon teg ci kaw taabal bi. parce que société bu day ni soo ko sim nekk ci biir bari ñi. xam ne ni maara day taali ci wàllu saxaar yaakaar naa ne fii moom yu bëri sax dañ rek dañu asthmatique ndax saxaar soosulee léegi loolu en tant que euh, euh, autorité locale acte trois décentralisation bi da ngeen ko waroon ci poser ci table bi. d'accord naa li nga wax d'ailleurs commencé nañ ko. nouvelle équipe je le précise bien. Mm-hmm. donc euh, loo gis rek am noo koy noo koy noo koy noo koy foo koy jaarale. Mm-hmm. bon ñun maintenant ñu ngi d'ailleurs commencé nañ ko. mais yéen a ngi commencé yàgg parce que def ngeen fi au moins six mois. Euh, non attention parce que ba ñu installé ak maire ak léegi yàggul entre temps aussi y' avait beaucoup de problèmes. Hmm. je crois que peut-être am occasion euh, prochainement ñu wax ci li nga xamante maire bi def na ko. Hmm. ci ay ak ci laa la wax. Hmm. maintenant pour ñëw ci question bi nga wax effectivement par rapport ak Sococim parce que c' une affaire sérieuse Sococim doo ñëw rek comme ça aborder ko comme ça de façon très parce que am na ci préoccupation ñu fexe maintenant nan la mën a porter loolu auprès par exemple des autorités de l'usine mm. donc euh, liggéey boobu enclenché nañ ko depuis démb ba 22 heures 23 heures on était ici en réunion mm. mercredi prochain ci loolu la ñu sëgaat encore mm. bientôt par le biais de l'installation des conseils de quartier daañu am daañu recueillir le maximum d'informations pour mën a xam population yi lan la ñuy te lépp lu ñu laaj ñu lu ñu bàyyi. muy foncier. Mhm. muy environnement euh, euh, léegi pour que ñu mën a avancer soo ko sim ne ngeen dafay yàgg kooku ci jamono yi Blaise la woon. waaye pôle bi yàggul de. waaw pôle bi c'est récent pôle bi euh, lu ko indi rek. te dafa mel ni que Bargny foofu rek la dese comme espace. waaw li ma ci mën a wax foofu. pour mën a yaatu. pôle bi man personnellement de sama avis du lu may ñaawlu man lu may. Euh, rafetlu la lu may rafetlu la personnellement ci di bien. jàpp naa ne bi. mais li nga mais li nga wax ni c'est grave de. maa ngi ñëw maa ma jaaxal tuuti yéen d'abord jam euh, ñaajo bari ki démb njaay la bari ñi moom moo ko fi jiitu. waaw maa boo leen demee ba ñuy naan pôle de jam ñaajo. da nga may ma tontu. ñu ne pôle de Bargny. da nga may may ba noppi nga koy rafetlu man daf may jaaxal. maa ngi ñëw foofu maa ngi ñëw foofu justement maa ngi mhm. dire que pour répondre à question. Mhm. boo gisee ma ne pôle bi am na lu ma ciy rafetlu. Euh, man projet bi xalaat bi. Euh, ak la fan na ma def parce que gis ngeen plan d'aménagement bi ak projet yi nga xam ne dafa war a ñëw foofu. Mhm. te gëm naa ne loolu bokk na ci liy yokk réew mi ci wàllu développement. Mhm. foofu laa nangoo pôle mhm. mu des nag benn mbir. muy am na ci loo xam ne mënu ma ko nangu ci pôle bi. muy. dafa jàpp bu fekkente ne une collectivité locale comme Bargny dafa ëmb lu toll ci presque cinquante pour cent de la superficie di pool tey ñuy war a tudd pôle. le pôle de Diamniadio comme si pratiquement euh, suuf soosu yëpp par la féete woon. Hmm. man damay gis ne autorités yi foofu dañu daanu. loolu man du ma ko rafetlu te nit daañu def li ci war nag. Hmm. quelque part pour que ñu réhabiliter Bargny par rapport à ça. Hmm. il faut que turu Bargny. mën a apparaître ci dénomination pôle bi. parce que loolu moo jaadu. tey pôle bi je vous dis à plus de pour cent. et dans le périmètre communal de Bargny. donc à man du ko nangu mu la centrale jël na li mu war a jël yëpp soo ko sim jël na yi muy war a jël yëpp bari ñu amatul fu mu aw donc zone bi ñu amoon comme zone d'extension mooy zone bi nga xamante moom la pôle urbain bi jël mhm. mais loolu man du ko nangu parce que li ma jàpp mooy d'accord pôle bi mën nañu ay projet mais sur une partie de nos il faut que ñu may Bargny parce que mhm. population yi day màgg Bargny fait plus de soixante-dix mille habitants dafay yokku donc il faut que le pôle mhm. reculer wàññi leen di pôle. Mhm. pour que bari ñi mën fa dëkk euh, ci décennie yi ñu mën a ñëw at yi ok ok da euh, tegal foofu sa baaraam rek daañu ci dellu si waat parce que c'est extrêmement intéressant ce que vous êtes en train euh, wax ji. dañu ne li mu jël si bari na ko wàññi jël li mu war jël. mais bu bàyyi ñu ngir yàlla yow suuf bi ñu am fu ñu màggee. parce bàyyi am fu mu màggee. donc superficie bi mhm. Mhm. Mhm. gis nañu préfet gis nañu service bi sale bi nga xam ne moo yor pôle bi bañ ko gisee aussi nous a promis que ne dina wàññi pôle bi. da ko wax kese wala da koo bind signé. gaa yi léegi il faut il bind di signé de. wax kese nii. Hmm. waaw xam ab dëkk. Mhm. ab dëkk yónni la su jàkkaarloo ak yow sa kàddu waaw xanaa kàddu boobu. Mhm. Mhm. en tout cas gis nañ fa ay wax waxet yu bëree bëree bëri tey kilifa ko wax léegi <laughs> léegi li ñu def mooy euh, si Sini wax na Libaas wax na ubbi télé rek ah. Euh, dina dellu si waat ñoom ci ñoom léegi léegi li ñuy def mooy jël kàddu gi delloowaat ko askanu Bargny ay contribution wala ay question yoo xam ne nii daañu ko posé par rapport ak la nga xam mu aju ci wàllu suuf si. askan wi ñoo ma yóbbante jafe-jafe yi ñu nekkee. musuma dégg mu wax parce que damay rappeler ne man la politique man maa nekk le coordonnateur mais Seydou Sy Sall bi mu ñëwee avant ñuy dem bi mu fi ñëwee il avait promis de venir au mois de janvier deful loolu ñu rappeler leen ñu ne dinañ la ñëw le mois de février ñëwuñu ñu joge foofu dem saisir le préfet préfet li mu ñu wax defu ñu jóge foofu dem si Pape Mayel Thiam Pape Mayel Thiam li muy wax ñu ngi si ñu ngi déglu déggaguñ nee na dina rendre compte fidèlement le président de la république mais nag li ñu jaaxal mooy le préfet boobu fi jóge daf fi jóge bi mu fi jógee ñu indi ñu un nouveau préfet boo xam ne ñoom dañu ne impensé wu ñu suuf ku la wax impense da wax d'abord lan par exemple la ñu parce que bu ñu la impensé te li ñu li yow fi nga war a dëkka foofu yëpp doon nañ ko ay pôle urbain boo xam ne les les moyens les moyens standing c' est à 25 millions les grands standing à 35 millions loolu ñun moo ñu jaax parce que tey jii c' est bien beau de de parler mais la nouvelle équipe municipale ñoo war jël seeni responsabilité parce que man en tout cas am nañu occasion ma wax que le président de la commission domaniale ma ne ko faut ngeen communiquer comme le préfet. da nga jàpp ne a nekkee parce que mm-hmm. ñu mu am situation bi ñu fi fekk li ñu waroon def mooy def état de des lieux ne lii lañ fi fekk fii la ñu jëm lan ngeen si xalaat mais amul cas de de concertation. defuñu ko. boo demee à Rufisque. Mm-hmm. ñoom déjà seen euh, euh, euh, conseil de quartier yi commencé nañu mais baat ñi amagul te loolu c'est prévu par l'acte 3 de la décentralisation mu mel ni ne tey jii seulement la mairie ñoom ñu ngi def gestion par téléphone. dañu lay woo téléphone ne la nangam ak nangam parce que li ngay wax sànq ni hmm. di expliquer ne ndax Seydou Sall lim ñu wax ñu ne la kii fi toogoon sànq di ci libaas hmm. wax la ne waxu kilifa dañuy mën a jàpp kilifa moo wax hmm. mais kilifa boo xam ne bu la woowee téléphone bu paree woo keneen téléphone li gën a station yi toog ak ñoom wax comme ni ko jàkkaarloo defee nii ko quoi mu ngi noonu léegi nag li fi des mooy le pôle urbain dañu ne mil six cent quarante quatre hectares superficie bi muy occupé Seydou Sall boo leen ko déggee ci semaine bi passé def na sortie médiatique mu ne ñu ngi ba 2000 nangam hectares te léegi léegi dégg nga ne kii nee na euh, quatre-vingt pour cent kii nee na cinquante pour cent ci surface géographique Bargny lañ ko jële mhm. mu mel ni ne ñun li ñu soxla du connotation ci naka la tudd mhm. pôle urbain de Diamniadio wala pôle urbain de Bargny mais dañu ne parce que bu ñuy xool ay connotation man li ma jàppalaa mairie mhm. mooy li ñu soxla mooy les les recettes yi loolu la ñuy xool mais ñun au delà de ça la ñuy xool mooy bat ñi y a un parce que statistique bi mu joxe sànq ñuy wax ne soixante dix mille habitants la loolu c'est depuis quatre vingt actuellement on est mille habitants habitants yooyu zone d' extension yooyu bu fekkee ne fenn rek moo si des mu nekk zone d' extension bi xam ne jël nañu centrale bi teg ko si lotissement yi ñu joxoon des fils Bargnon jël le pôle urbain euh, jël Sococim le protocole ñu jox ko des dignes fils Bargnon jëlaat ko jox ko si muy 461 euh, hectares léegi ñun tey ñu am benn zone d'extension kese muy fii pôle urbain bi na mhm. tey ñu bëgg a fa jël teg fa pôle urbain de Diamé au cœur de Bargny tey jii ni mu mel ni tey jii ñun suñuy sët bu ñu bëggee wax ma ñun de mhm. mais suñuy sët ñun Kacalet wala Mbadef wala Saarepaate wala dëkk yi gën a reculer ci senegal ñun foofu la ñu war a dem dëkki mu mel ni loolu délinquance foncière la parce que li ñu mën a jàpp mhm. mooy y a des am na lépp état nag continuité la le préfet il continue de nous mhm. ñun loolu la ñu wax ne bu fekkee ne dafa laaj yëglu parce que damay fàttali ne kilifay ban yëpp waxtaan nañoo ñoom mhm. bu laajee yëglu dinañ yëglu bu laajee concerté wu avec les élus locaux dinañ concerté wu mais na mhm. du toog ba ñuy jël suñuy suuf ñun du am fu ñu dëkk jaajëf jërëjëf jaajëf di am fi centrale à charbon c'est dëgg la mais man mooy pollution bi centrale à charbon bi na a defal waa Bargny hmm. looloo raw leen hmm. est-ce que ñoom xalaat nañu si est-ce que woo lañu seen technicien pour ñu def ay recherche si lan mooy centrale à charbon hmm. lan moo tax Abdoulaye Wade accepté ñun boog ñuy accepté Abdoulaye Wade di indi ay projet yooyu fii c'est inhumain nit. mais balaa waat nekkatu fii léegi. waaw mais naw fi ne ñii fi ne équipe bu bees bi. waaw ñun nañu loolu. Hmm. ñàkk nañu fayda ñu commencé travaux yi. mais war nañu am suñu fulla bopp ba nga xam ne travaux yi. bés hmm. ñu ngi wax Sococim pollution Sococim bi ñun ñëpp dañuy dee. Hmm, maanaam il est temps non dëgg dëgg si dëgg bi la ñuy jaar. am ngeen problème nag non c'est vrai am ngeen problème parce que Sococim bu nekkee à à droite ak poussière am. centrale à bu nekk à gos ak poussière yéen de bari ñi xam naa ne doy na waar de géej gi as yu nekk à droite bu yeboo ngeen teel a de. dañu bëgg a rey équipe municipale bu bees bi c'est des intellectuels. Mm. c'est des jeunes mm. être mënoon a def lu ko neex mënoon a seetaan lu ko neex. comme mm. c'est des jeunes. intellectuels dañu leen fal pour ñu régler problème bi dëkk bi. nañu wax la ñu xalaat ci centrale. daajëf daajëf su jaree ñoom. ak ah, booloo li jaadu mooy li nga xam ne moom la administration bi dundal ci li nga xam ne pour ñu dundal. Mhm. ñu respecté ko bañ bi def loo xam ne dina jur violence. te violence ñun ci suñu diine sax dañu koy dàq ni ñuy gën a toujours mooy ñu waxtaan ba jubóo. Mhm. mais fi ñu toll ak ñoom wane nañ ne ñoom ci ni ñu taxawee la ñu war a egg ñoom léegi daanaka toll nañ ci wala ñu sool ñu parce que fi ñu war a jaar yëpp pour am jàmm pour dund si jàmm. loolu la bat ñi gën a manqué mhm. aujourd'hui fépp fu ñuy jaayee garab boo demee doy bat ñi nga fay fekk si pharmacie pharmacie yëpp dañuy nekk en rupture parce que maladie bu la jaaxaral léegi muy installé wu à bat ñi à cause de quoi la soog si waxati nga loolu pollution yooyu yëpp te dañu taxawaat santaal boo xam ne mooy jekkali gi nag mhm. li ci gën a yéeme mooy pôle boobu ñuy wax jam ñaa ji amoon Carrefour la boo xam ne Koulumba yaa fa nekkoon ak ñaari kër kër baa njool beneen kër boo xam ne ay waa Bargny ko moomoon aujourd'hui ñu naan pôle pôle mu nekk ay benn Carrefour ay camionneur di fa gaare di fa jaar di fa installé wu ba finalement mu lekk barñu sanitaire boo xoolee ak Iden yëpp ñu ngi foofu Iden 3 tout c'est installé à Diamniadio mhm. aujourd'hui bon barñu lan lañ ko naral donc état li ma comprendre mooy lu ñu mën a dégg mooy ñu taxaw suma summaku jaayante ak seen bakkan mhm. parce que aussi jaayante suñu bakkan ak ñoom moo ñu gën a xaar ma jàngale tëral ñu ngi duñu suul mhm. dañuy dem ba du am ku suul ñu fi ñu fi jógee mhm. parce que nit boo laa mën a suul ki nga fi jóge la day fekk yow nga dunda moom mu jóge fi mais aujourd'hui tout le monde est malade donc li ñu dese mooy aussi ñu ngi interpellé aussi ñi nga xam ne ñoo la fi yàlla teg pour le moment ñoo ne dañuy diriger mairie bi une maire kenn ne ko diriger te defuloo l'état aujourd'hui kanam fu lu bari yem ak fu mu commencé bi si topp mooy affaire lotissement yi ñuy wax seendu ak la ci des ak yu mu doon li gën a urgent pour le moment suma xalaat mhm. mooy ñu def situation bar ñu xam fan la yem bu ñu amee fan la yem ba te ñu jàkkaarloog yi si des te ñu ngi interpeller état pour ñu intervenir lu mu gën a gaawe ak pôle boobu ak Seydou Sy Sall parce que ñun demuñu Koungheul di fa laaj dara mhm. fii la ñu mën a dëkk bari nga la ñu mën a dëkk amuñu feneen comme que la ñu am ni ñu bàyyi lillahi wa rasul moom mu taxaw si xool fu problème am contre pour développement à mi parce que développement boobu ñuy wax moo ñu andi soko sim jël li ñu amoon lotissement fay ay acte administratif dem au trésor ñun ñëpp ñu ngi ak suñu ay quittance man mi ci victime de ça maa ngi suma terrain ak boo xoolee trois mille ak ñu ngi fi yoo xam ne administratif ànd ak ay ay ay euh, délibération et dem au trésor donc contribuable yoo xam ne def nañu loolu ba pare. Hmm. retourné amuñu ku ñu interlocuteur man la wax ak état man la wax ak maire boo demee maire aujourd'hui hmm. xamuñu sax ñoom fa la ñu yëm. Hmm. responsable commission domaniale ñii li mu wax mooy amu amuñu lu ñu def amuñu li ñu def li ñu man mooy ñëwaat ci population yi pour laaj nan la ñuy def. population ku muy xaar pour mu dimbali ko bu fekkee kooku day dellu si di moom di ko laaj lu muy def mooy mosu am na. jaajëf interpellation la. suuf si hmm. dafa jël alors suuf yu bari ñi ko jëngal bari na trop euh, deux cent quarante et un hectares yi yi ñuy wax mooy le lotissement de Médinatoul Mounawara loolu andi na problème bu dul jeex loolu maire yi moo ko signé woon ak Sococim mais dafa am loo xam ne dafa koy leeral mu am deux cent vingt hectares yoo xam ne Sococim kenn joxu ko ko loolu dafa war a leer si nit ñi daf ko annexé. ah bon doole la kii ñëw clôturer ko parce que deux cent quarante et un hectares rek la signé woon ak mairie municipalité si fi jógee muy deux cent quarante et un hectares mooy le lotissement de Médinatoul Mounawara. Mhm. boo demee tey da nga gis ay construction yi ne si biir am na ñu tabaxoon. Mhm. tey jii boo demee am na ñaari famille yoo xam ne ñu ngi fa dëkk na duñu fi génne. loolu dafa mat a leer bu fekkoon ne Sococim moo ko moom dina génn ñooñu par force donc moomu ko ñaari famille yooyu dañ du ñu génne dee rek moo leen fay génne mais deux cent vingt hectares yi moom si boppam daf ko sàcc kenn jox ko ko deux hectares yooyu dafa amoon benn base militaire américaine il faut que moo leeral ko base boobu ay avions ñoo doon jóge fii en 1945 di dem en Libye di bombarder l'armée nazie avion yooyu bari yi gën a doon jóge le président américain français Franklin Roosevelt ñëw na fii en 1945 fii wàcc Bargny mhm. donc loolu soo ko sim dem ba foofu base boobu day ko miine mhm. yaaxa ko léegi ñun dañuy laaj am mu def loolu parce que tey jii base boobu bu ne woon dina nekk monument UNESCO mhm. donc la municipalité loolu am na si yoon da si war a wax. ok ah merci. merci kooku aussi da si war a wax. Mhm. donc problème bu ñu jógee foofu maa ngi koy laaj euh, équipe municipale biy génne bi fi jógee dañu waxoon ne nit ñi nañu jël seeni i suuf lotissé ko boo demee ginnaaw raay bi ko lotissé ngeen xaaju ko ak seen i am na ñu jaay am na ñu tabax ñu ngay tabax. donc léegi tey jii damay laaj équipe actuellement construction yi nekk foofu léegi ñoom seen jëw bopp lan lañu si nar dañu bëggoon ay leerlu jaajëf bariwul dama dégg ngeen di wax si kër siiru du mooy si kër siiru mhm. mooy soo ko si waaw ñi la bokk bokkutal bari si kër siiru bari ñi la bokkoon leen la wax ndax bi mu bokkee bari ñi première saaku ciment bi nga njëkk liggéey da ci si bind bari ñi mu dee mel ni boom bari ñi ñoo ko moom am na pomb ëmb bataan ñu di ko wax pomb mataan ndombo mag ñi waxuma man dañu wax ne foofu la bari dare woon ak na gal yóbbu ndox du jub dee dëng ma ne ak xuur gal yóbbu ndox ji jub dee dëng foofu wax kolobaan boo toppee dex ji te daal xam ne mënoo jub bi mu dëngee ne dafa ëmb si ko ba ñu war kaa moom parce que alal ñuy yëf nga li tax ma ñoo ko moom ñoo ko jaay ku fi gis ka jaay la mu moomul kan la nan ma ko wax loolu yëpp nag nu defoon kay jaaxaan mu ngi nekk bi ñan ñoo ko jaay askan wi ñi fi dëkkoon non mën na maa tudd famille bii ko jaay ndax ñoo ko moom di ko jaay mhm. dama wax ne nit du jaay la mu moomul te ba pare nag euh, nit li ñu tuddee politicien ñu bëgg a defaru jëlaat ko taf ko ci Tëngéej mu mel ni Tëngéej la bokk fekk bokkul Tëngéej Bargny la bokk indi ko fëkk ñu toog indi ko muñ ñu jëlaat feneen fii féete ci kaw dama dégg ngeen di wax Paul man nag Paul dama defoon ne li nga defaree beñe la xaw ma pool i suuf la ma xam ñu jël mag ñu ñi indi ragal rek waaye nag ñuy war a ragal ndax indi edda kandaw nag ba mag eddee da ka dëkklu bëggee jubal bari ñi mën nañaa def li réew mi def waaye bañ ñee ne duñu yàqal la ñoom moom buur ba fi falu rek waa bañ ñu ne alal lu buur ndax am nu ragal de dañuy yëg ne buur yàlla ka fal ba bëggee jàmm àndal sa bel mu neex yàlla mu jëlee ko waaye na fa jóg jël jàmbur ñu rafetal jël yëfu jàmbur jox ko loolu am na danse xamul luy dal si tubaab waaye loolu daal am na ay ngaañ bari ñi nag mag ñi dañu wax ne nakaanu daa def di leen def ñu ne naka ñu ne leen tooñ jublu leen penku ñaanal yàlla ay nit la ñaa tànn na guddi ña dem ñaan yàlla bàyyi bañ a sànni xeer tànn mee raan nag ba di ko bañ man ba mbirum talibé li sax nii xeet eh, ibu na noo boole ñu daxalu inna bay da doo ngaara daw àndax doomam ak jabaram ba maa daw nag dama ñi te bar ñi yoonu sindu fi la wax minam moo bar ji benn la woon tafi ji ka sindu dese bar ñi tafi ji ka sindu foo ko dañe te ñàkk ñi foo dugg fii ci boori kaw nga dagga le Mbambilor ak Kër Ndiaye la Birame Demba Ndiaye ñoo ko moom. Chier ciment jël boor bi si des. géej gi ñëw kenn mënu kaa téye gisuma ko mën a téye na wax. da def. nu yaakaar yàlla yaakaar buur. Hmm. buur nag yooyu yëpp dalal nu mu di ay feebar. Hmm. nu bëgg a faju. da def ci ñoom. kër li moo tuuti lépp. Hmm. te maa ngi ginnaaw yàlla moom la ñu fi yaakaar muy borom kër bi. mu ngi fa teg ay soxla mm-hmm. nu ngi kaa gis ak ñu ne bari ñaan laamu moom amee ka yomb na ba bëggee jubal mm-hmm. maa ngi wax ak la garaaw la ba nekk defulee ba ëllëgee la ñeneen ñoo ko mm-hmm. maa ko wax ne jàppale ma jërëjëf merci jërëjëf papa yëngu si transformation des produits halieutiques ndax ku ne bari ñi xam ne seen seen euh, développement yëpp ci géej lañ ko yaakaare suñuy jëkkër ak suñu doom ay pêcheurs la ñun ñun lu ñu andi moom ñu transformé mhm. léegi Seydina Omar mhm. ba nga dalee dégg ba léegi mosuloo dégg ñu ne centrale à charbon de Bargny mosul mhm. am dañ naan centrale à charbon de Sendou de Sendou TF bu Sendou ou bien képp koo bu Sendou te centrale yi mu ngi si biir boobu si déjà waroo ñooman li ñi xamante ne ñoo fi nekk muy euh, équipe municipale dès à présent parce que dégg naa euh, directeur u Sénélec loolu la wax euh, euh, centre à charbon bu bu ba démb aussi le premier ministre bi muy euh, nekkee assemblée centre à charbon bu bu aussi la wax. Hmm. jigéen ña fay liggéey nekk. bari ñi moom ana seen bay yéen moom kenn xamoon moom daa am. yéen pôle ñu tuddee ko jam ñaajo central ñu tuddee ko Sendou. lépp ah, na waar hmm. xalaat ne li ñu doon toog parce li ñu wax fii rek mooy waa Bargny dañu leen yàq. Hmm. jëkkoon nañ fi def benn mouvement. muy seen diggante ak seen ak Sococim euh, ba ñu am fu nga xam ne dañ leen tëjoon mm. peut-être nekk di bañ. wax mm. ne leen toog leen ñu jaar ci voie normaux yi ñu mën a lijjanti ba yegg ci président. tamit lii ñun duñu toog di ko seetaan mhm. bu góor ñi toogee di ko seetaan jigéen ñi bax ñuy toog di ko seetaan mhm. parce que fële mooy suñu gañ-gañ la mhm. ñuy liggéey suñu kër lañ ko jëlee bu suñuy jëkkër mënatule ñun ñoo yor suñuy ñu jël lépp yokku di ko dafa war a développé Sénégal wala université bari est ce que noonu loolu duñu toog di ko seetaan fële cent cent mille mille femmes ñu nga ko liggéey di daan seen boole kër yi ngay digg si bat ñi géej ñii géej gi yàq seen kër 31 août bii passé ku nekk gis na li nga xamante ne moom la moom la fi géej gi yàq hmm. ay millions lañ fay état mosu la ñëw un franc mosu ko dimbalee mool mool mu fi nekk la nga am yaaka moomal sa bopp ñii ñi si leb banque ma ay benn benn lañ ku si nekk suuf soosu ngay wax tey moom la say mbokk di dajale jël ko jox la nga defar gaa pour au moins seen famille man si man man man say hmm. waaye léegi bu ñu jëlee ñun fa ñuy transformé ñu jël ko su bon suñu suñu suñu dem géej. Hmm. ndax bu ñu demee géej Joal gii ñu ngay dégg mu am développement hmm. ko développé. Yaraax dégg ko développé Mbuur gi ngay dégg ban ñu moo ko développé. ndax li ñu am ci gaal ëpp na nekk bu def deux cent cinquante personnes am ay nit yi nga xam ne ñu ngi seen te ñooñu ñëpp géej lañu yaakaar. Hmm. donc ñun centrale à charbon bi bëgguñu tey. Hmm. bëgguñu suba bëgguñu gannaaw. jaajëf ndax centrale a charbon bi ku bu hmm. euh, a yokku. ñun xam ñu jox si ne moo nekk à la li nga xamante ne moom la àddina fi di dox. mais la nga xamante ne kenn bëgg-bëgg si àddina. muy centrale à huile. ndax ku nekk xam ne lu muy ba nga xam ne yaa ngi jëlee ji abribus lu yombul sax dañ ko fa jaay ne leen kay ñu jël ñu may ñu may leen ka ndax nekk xam ne ne daa bëgg lu yomb hmm. mais bu xalaat naa bu ñu ko doon jënd hmm. di jënd li ñoo defee électricité mu nekk la nga xamante ne du gaañ nit hmm. du lor nit du wàññi nit dara foog naa nag ñu ngi ñaan état bu mu suuxali Sénégal si suuxal waa Bargny ndax Bargny ay nit lañu Bargny dañoo dañoo dañoo dañoo dañoo am ay problème mm-hmm. yàlla def seeni mag ne leen toog leen mm-hmm. ñu ngi toog Ablaye Makhtar Diop ñëw na fi xale yi daananoon nañu miiru central ba mm-hmm. ñuy gañ problème ba nga xamante ne xamuñu fan la am nañ fu muy commencé mais ñu xam fan lay yem Ablaye Makhtar Diop ñu woo ko mu ñëw ne leen comme da ngeen ma fal ndax man ab lépp ku ñu yéen na ngeen bàyyi man ma dem wax ak état mu xam la leen doon mais xalaat naa ne depuis ñu dox loolu ba léegi gisuñu benn tànk jéego bu jëm kanam bizarreté euh, bizarre la politique est bizarre. Mhm. parce que ñu fi fal tey jii. Mhm. biñ jël xam ne joxuñu leen réew mi euh, fii euh, maire bi dañ taxaw xam problème Bargny bay wax limitation de Bargny na Bargny fi mu nekk nii mu ngi mu ngi mu ngi seey Bargny léegi amatul fenn benn limitation bi ñu amul fi ñu dëkk ñu loolu ñu fal leen ñu toogee fii def ba tey jii actuellement ñuy wax ay continuation de état c'est une continuation te continuation boobu lañ bëgg ñu arrêté ko mais ça devient bizarre. cette continuation moo ñu rey. Hmm. te loolu lañ bëgg ñu arrêté ko. mu am ñaari question yi mu koy posé encore comme ñoom loolu ñoom ñoo tax ñu fal leen ñu. te fi mu nekk nii fa la ñu joxoon ñi nga xam ne waa Bargny Géej ñu joxoon ko pôle bi jël ko waaye ñoom quelle est leur réaction quelle est leur réaction. Hmm. faut pas qu'ils viennent le peuple qui les a ñu leen fi teg ñu représenté leen ci Bargny ñoom ñoo war a réagir. c'est bon deuxièmement. Hmm. fi ñu joxoon fii waa Bargny am na ñoo xam ne dañu fa jëloon ñaari terrain 300 mètres carrés. kenn ñenn ñi 150 mètres carrés la leen jox li ci des joxuñu leen ko ba léegi te ñu ngi daw ci seen terrain ba loolu. Hmm. quelle est notre réaction. waaw salaamaaleykum. Hmm. Euh, man li ma si doon wax euh, du nekk ci wàllu suuf gi waaye li ma bëggoon euh, wax mooy ci wàllu jàng bi la. Bargny du problème bi mu am du suuf si rek la. Hmm. ndaxte fi ñu toll nii maanaam éducation Bargny mu ngi jàkkoonteel jafe-jafe yoo xam ne kenn mënu la ko nettali. ba tey étudiants yi bëri ñu ne dañ leen faa génne te loo nga xam ne nii problème boo xam ni gars yi war nañ koo lijjanti tey boo duggee lycée lycée ba amul électricité lycée ba ñu ko teg place boo xam ni saa bu tawee ba dañoo mën a jàng ñu dem décembre ndax day inondé day mel noo xam ni mara day taal yi école bari ñi foo xool bâtiment yaa ngay daanu amul ndox douche baaxul dara baaxul waaye loolu war nañ ci wax léegi moom budget bi ñu wax ñu ne jël nañ ko pour éducation ñoom ban taxawaay lañ ci am ngir saafara jafe-jafe-jafe yi nga xam ni mhm. école lu bari ñaa koy dund askan wi ñoo ma yóbbante jafe yi ñu nekkee mën naa tontu maire parce que xam naa ne ku ñeme jotaay yi la mhm. tey it euh, sopp na ko mhm. euh, bu yàggul rek defe naa ne am na ku ko wax ci affaire conseil de quartier yu ñu installé fenn yeneen i yeneen i euh, dëkk ma leen di informé ne bar ñi commencé na ko Minam la ñu njëkk a installé boobu léegi mat na weer donc calendrier bi la ñuy defar pour dem foofu jàkkaarloog population yi ñu wax mu dégg moom mu wax it ñu dégg parce que ñun ci communication la ñu fas kenn yore maire yi euh, looloo waral d'ailleurs am nañu benn partenariat ak Jokko FM. Mm-hmm. conseil municipal yi léegi Jokko daf koy teg en direct. ba xam ne ku top këram sax dana ko mën a suivre. Mm-hmm. commencé na def yu ne dañuy dañuy voté budget mm-hmm. donc loolu lépp ci wàllu transparence donc tout à l'heure bu ma waxee ne problème na. ma reconnaître ko du parce que aveu aveu d'échec la du loolu parce que problème bi jël nañ ko à bras le pour régler ko te ñu ngi ciy régler yu bëri yoo xamante waxaguñ ko mais je crois que daañu daje population yi incessamment pour wax leen ko mhm. euh, ne dafa baax ñu recueillir xalaatu askan wi mooy dañuy bañ tegu fii si biir dem négocier ak ñoom gestu population yi nañu li ngeen fa nangu santaw ñu leen ko parce que gisoon nañ ko fi ci protocole d'accord boo xam donc man li ma jàpp mooy projet ñu fi évoqué yëpp Seydina Omar mhm. nañu retenir benn mbir pôle urbain lañ ma wax mhm. pôle urbain jiitu nu maire di yegsi mhm. Sococim lañu wax Sococim jiitu na maire bi ñu koy fal centrale la ñu wax centrale jiitu na ñuy fal maire boo gisee man ne administration de continuité la mooy mbir mi lu mu metti metti metti metti soo ko hérité et en toute responsabilité mais ba ngeen toog est que def nga état des lieux wala justement parce que situation boobu. Mhm. am na lu ci am. pour ce qui est de de mënatu mun a lotissement am na ñu fi ñëw di joytu tout à l'heure que ne ba léegi. ba ñu ñëwee jël nañu situation bi xam nañu ñan la ñu waroon a transférer te amuñu seen i parcelle parce que jàngat nañ ko. Mhm. loolu li dañuy def ci lotissement bi nekk en cours nii d'ailleurs on va bientôt terminer le travail balaa ñuy jox qui que ce soit parcelle daa ñu jox ñi amoon seen i mhm. par contre ñi nga xam ne ñu woon seen. mais ña mais mais ñu amoon 300 mètres carrés bëgg am 150 mètres carrés. foofu it beneen problème la parce que c'était ça fait une dizaine d'années. Mhm. nit amoon na 300 mètres carrés ñu toxal ko seen di jox ko 150 mètres carrés problème boobu it aussi lu ñuy régler la ci kanam. Mhm. mais ñi nga xam ne au moins amoon nañu parcelle fële kenn joxu leen ñun daañu fexe nu ñu leen joxee parcelle parce que maire dem na seeti les autorités compétentes avec le maire de Sendou qui de bonnes dispositions. Mhm. am daal ñu ubbiwaat commission bi parce que maire saisir na leen pour ñu ubbiwaat commission bi mhm. pour que ñooñu xam ne dañu woon dañu leen amal des parcelles à Sédhiou mhm. ñu delloo leen seeni i parcelles pour ce qui de la centrale euh, le jeune Ndiaye a posé la question effectivement centrale bi fii lañ ko fekk du loo xamante ne gën mais ci wàll woowu maire dafa inscrire budget xaalis ci biir budget bi pour ko ñu am benn étude ah environnementale bu indépendante boo xam ne dañu koy def pour man a xam lan moo nekk ci risque risque yeeg yooyu yëpp. Mhm. donc centrale bi li doy wax nag ci mbiri Bargny je le regrette Bargny dinañu xeex. Mhm. Bargny ay béykat lañu. Mhm. waaye damay def nag quelque part par rapport ak centrale bi. dañoo xala nelaw tuuti nag. parce que centrale bi daanaka. Euh, yegg na ba presque à quatre vingt ou quatre vingt dix pour cent de réalisation léegi nag. ñun ñoo bokk dëkk bi kon ça veut dire que lan mënut jóge moom. non loolu mënu ma ko wax. loolu mënu ko wax parce que lu mënul nekk amul donc. Hmm. que nit ñi toog mooy jotaay yooyu may wax hmm. maire dana dem ci population yi waxtaan ak ñoom lépp lu mu ci doon bépp question bu mu mën ci doon ñu ko aborder ensemble parce que c'est ça aussi li tax ñu teg ñu fii c'est pour que ñu mën a taataan di recueillir avis population yi parce que moom du toog fii ci maire bi nanguwul loolu d'ailleurs hmm. di décider toujours il est vrai que nag war na si kilifa di wax loo xamante ne du ko def wala bu amee lu ci soppeeku lu ci changé bu wax ak nit ñi na fii parce que ñu ñëw fi indi yi dañ doon dégg Paul rek maire jël décision am woolu ko. Mm-hmm. effectivement mu nangul ñu ko ñëw ñu koy remercier ci loolu. joxe des informations mais ba muy dem dafa ne. ci daañu taxawal benn commission wala benn cadre boo xam ne maire bi dana ci am représentant famille yi dinañ ci am représentant. préfet moo koy jiite le pôle am ci un représentant. Mm-hmm. mais boo bëgg léegi ça fait trois mois ñu dégg-dégg rek commencé ne ñu ngi indemniser les familles. ok te ñu ñuy indemniser en moom moomuñu suuf si. moomuñu suuf rek di béy. mais boo ñëwee indemniser koo xam ne. la doon béy récolté na ko mu pare nga war ci indemniser. Mhm. mais ça pose problème. waxtu wi jeex na lay tàggatoo. vraiment maa ngi rafetlu encore jotaay bi. c'est dommage que émission bi gàtt na. Mhm. mais si vous voulez. incha prochainement mën nañu fi daje. toutes les autres questions. incha allah ñu ngi ñu ngi leen ñu ngi déglu. Euh, euh, ak bismillah Libaas lay tàggatoo. waaw man li may tàggatoo mooy damay état bi. Mhm. nga mais damay laaj ndax Sénégal émergent bi dafa diir. ñu hmm. koy ça doit émerger sur les terres de Bargny. Hmm. ndax yoonu hmm. ndax ñun duñu ay Sénégalais. ndax parce que Bargny ren nañu si lépp. Bargny existé toujours dara. jërëjëf beneen bi maa ngi koy jëmale jëmale jëmale jëmale si si si si. mais. mooy que ñoom dañ leen soxla suñuy côté ñuy ànd ak ñoom côté ñu bokk xeex que ay bari nañu ñu nekk ay ay ay élus locaux. ñu ngi koy sant ko gërëm di sant mi di gërëm ki nga xam moo di Seyni problème la boo xam ne nii daanaka ay eh, mairie yi ndaxte boo xoolee fële nga xam ne nii moom moo di ci arène nationale bi fa nga xam ni foofu lañ ko mën a bëgg a jëmmal ki nga xam ne nii moom moo di maire d' arrondissement ba nee na impliqué wu ñu ko ci mu doon loo xam ne nii du doy waar la tey jii ñëw nañu fi nga xam ne nii moom moo di ci ja ci bariñ yi ñuy taxawal li nga xam moo di pôle de Diamniadio mairie bi nee nañu impliqué wuñ ko si mu nekk aussi beneen problème boo xam ne nii mu ngi am lan moo ko waral nag amaana ñoom kilifa daañu ci indi ay leeral waaye l'essentiel li am solo ba am solo moom mooy que fii ci diwaanu Bargny askan wi ñu ngi jànkonteel ay jafe-jafe te jafe-jafe nag yoo xam ne ni yu tar la wax naa ne bari ñi dëkk la boo xam ne ni dëkk bu ndaw la dëkk boo xam ni waaye tey jii daa fekk ne seen suuf lépp état teg na ci loxo bi ci njëkk moom moo di Sococim beneen bi ci tegu moom moo di centrale à charbon bi beneen bi ci mujj moom mooy pôle bi nga xam moom moo di pôle bu Diamniadio kon tey jii Bargny amatuñu fenn fu ñu jëm mu nekk nag benn problème boo xam ne nii problème bu doy waar la mu nekk aussi benn bomb boo xam ne nii je pense bien que état yi war nañ ci mën a jóg jëm ca ur saafara parce que lii nga xam ne nii moom moo di mu ngi nelaw yaakaar naa ne buy yeewoo amaana musiba mën na am ba tax na ñu ngi profité ci occasion ci émission bi di ñaan kilifa yi ñu jóg seet si waa bari ñi waxtaan ak ñoom ndax wolof yi nee nañu réeroo amul ñàkk waxtaan rek am te je amaana jàmm dana am fi nga xam moo de ci diwaanu Bargny su ko defee sellu du yooyu giir du dem nen kon ñu ngi sant di gërëm bu baax a collectif bi nga xam ne nii moom moo fi woon waaye tamit di sant di gërëm bu baax a ma lu tax maire yi la rek lu lëndëm la maire bi toog su ko def ñu ba di sant tamit di gërëm bu baax a baax équipe bi nga xam ne ni moom la àndaloon Sow moo féete woon ci wàllu logistique bi di sant di gërëm bu baax a baax Papis Mbaye mi féete ci wàllu réalisation bi di di gërëm bu baax Demba Thiam ci wàllu montage bi kon mbokk yi lii moo nekkoon seen émission jàkkaarloo askan wi ñu ngi ko doon defee fii ci diwaanu Bargny ñu leen di dig daje àllarba ak jàmm ci beneen émission jërë ngeen jëf.